ay ca mbokk yeeg xarit yi teew lu solution TV solution. fu mbégte la ñuy am comme niñ ko baaxoo di defee say su nekk ci altine waxtu wi la ñu ñëw fas yéene jàkkaarloog yéen ci l' émission des émissions ñu fas yéene ci ànd nag ak Alaaji Sanjogu Meng ginnaaw biñ leen nuyoo ziar leen sargal leen ñanal leen jàmm ju sax dàkk di ko ñanal nag diwaanu Ceskaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport ñaanal itam sëriñ Sidi mu du la Xaati Mbàkke yàlla suñu mboom yàggal ko fi loolu mu ànd ak wér defal ko jàmm defal ko njaboot gi wasaare ko ci biir kër gi te koy ñanal mboolem xalif fi ci biir réew mi yëpp suñu mbokk sénégalais yi nekk fi ci biir réew meeg bi ci réew ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax di wax nag yi alaaji Sanjoogu Meng moo ngi nii toog dem na Touba ba ñëw ñu lay sàggal nag euh, ci euh, Touba gi euh, di leen ñaanal lépp lu ngeen fa ñaan rek yàlla suñu boroom nangul leen ko nangul ko mboolem jullit tamay nañu nag ñu fekkee ay at yu bëree bëree bëri ci maa ngi lay nuyu di la ziar. ma jigéen ñi ngi lay fay <coughs> di am mbégte ak kontaante ci yow di nuyu Sénégalais di leen ñaanal jàmm dem ba Touba nuyu xalif général des mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi ànd ak wér waaye ñu ngi nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit. sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke ñu koy ñaanal mbakke mu yàgg fi lool tànd ak wér. amiin yaa rabbi nuyu sëriñ Xaadim ne ca kër ga njaboot ga yëpp ñu ngi leen di nuy di leen ñaanal jàmm. di nuyu sëñ Abdou Mbacke borom Makarim wax laa nuyu kilifa diine yi ci biir réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di nuyu ñi ne xam ne ñoo nekk ci xarala gi voilà di ñaanal ñëpp jàmm macha allah màggali nañ ba ñëw loolu nag ñu ciy sant borom bi subhaanahu wa di ko ci gërëm di ko ñi di ci ñaanal bokk jullit yëpp ña nga xam ne ña nga fa des ak ñëpp ñu ñibbisiwaat ci seen kër ci jàmm ak salaam ñi nga xam ne am nañ ci ay ndog ñi ci am ay gaañu gaañoo ñi nga xam ni génn nañ ci àdduna yàlla na sunu boroom xare leen àjjana ak ñi ci am ay gàllankoor ñëpp yàlla nañ faju ci jàmm dellu si seeni kër ci jàmm ak salaam suñu borom mën na ko yàlla na ko def. amiin di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. macha allah am na solo euh, ni nga ko waxee rek yàlla na ñëpp am jàmm euh, ñi looru nag te ñàkk ci seen bakkan yàlla suñu borom yërëm leen taxaay leen aljana yi firdawsi ñuy gërëm nag ki ne ci technique bi tey di gérer muy Alaaji euh, Abdou Top. <laughs> ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom topp euh, tey nag euh, laa ñu fas yéene waxtaanee nag euh, li xew ci penc mi rek di ay kàddu yoo xam ne ni ñi nga xam ne nii ñoo di ñu ne ci penc mi di ko yëkkati ji nag am na as gis-gis bu nga xamante ne nii am na kàddu yu nga xamante ne nii bu ñu ko yëkkatee rek daana ko ci am su ko defee rek baaxi ko askanu Sénégal yi nga xamante ne nii ñoom ñuy suivre tey nag daañu ko dooree ak Cheikh baax Ndiaye moom nag yëkkati naa ay kàddu jëmale ko ci kii di euh, Ousmane Sonko nekk premier ministre fii ci réew mi di Sénégal mm, wax na itam euh, ak mbaaxam ak fulaam ak faydaam ak li nga xamante ne nii mu ngi koy faral di doxalee ak ñi nga xamante ne nii ñoo di wàññu ñam ak àndandoowam ñu ne nag euh, Sonko nag du joxe xaalis xam naa ne nag du ñàkk alaaji am na gis-gis buñ ci am daan ci ñëw léegi léegi incha allahu rabbi Cheikh ah, ah, Abdou Bara Dolly Mbacké di xarit ci Alaaji Sanjoogu Meng xaritam lool sax macha allah moom itam ñëw na euh, ci assemblée nationale euh, doxalin ba fa am ak gis-gis bi nga xamante ne ni sénégalais yi am nañ ko ci boobule assemblée nee na nag kontaanu ci benn yoon ndaxte dafa am ñu fa nekk nag mu jàpp ni ñoom ay sekku lañ. nee na nag euh, li waral li yëpp rek mooy euh, Macky Sall mi fi nekkoon njiitu réew euh, saboté gi mu as saboté boobule assemblée nationale nee na nag su fekkee di sudd nañ boobule assemblée dàqul dem ànd ak ki nga xamante ne nii moo di waa Pastef wala mu ànd ak kii di Amadou Ba wala nag mu wer yoonu boppam moom daal Abdou Bara Dolly kàdd yooyu la yëkkati daan ci ñëw léegi léegi ñu jeexalee ko nag ak kii. Euh, nekk chroniqueur le journaliste muy Ahmed ndooy bàyyiwul ba tey kii di euh, suñu premier ministre bi di Ousmane Sonko tey nag fa mu fëlee rek demul ci lu dul rek artistes yi nga xam te ne nii nee na dañoo xew yi bëgg a ci xew Ousmane Sonko ba di ko way ngir bëgg a bokkaat ci li nga xamante ne nii moom moo di euh, géew gi. ma jàpp ni nag euh, Abdou Top dañ koy daal di doore ak ki nga xamante ne ni moo di Cheikh euh, Bara Ndiaye kàddu yi nga xam ne ni yëkkati na ko fële ci Touba ci màggalu Xaadimu Rasuul bi jëmale ko ci Ousmane Sonko ñu dem teewlu ko te dellu si. président nag wax dëgg yàlla Ousmane Sonko moom nag du joxe xaalis moom waaw <laughs> ah, joxe dara waaye daal du joxe xaalis. <laughs> waaye nag wax dëgg yàlla moom safo ak nitam ak faale ak nitam moom loolu ku ànd ak moom tuuti sax maanaam da ko da ko da ko ci jàngaat ci moom daal lu mbooloo bari bari bari bari bari kenn ku ne lim seq ak yow ak ni muy def ak yow moom xam na ko te du ko rëcc waaw loolu nag toogal ni toogal toogal daal Ousmane moom loolu la ko yàlla may mooy am nit téye la fukki at te du ngeen bàyyante man li may yàgg yàgg ci Pastef mësuma gis nit ku ne bàyyi naa Sonko xanaa kuñ mosal dara lañ la mosal jaral la nga dem. mi ngi noonu kàddu yooyu la baax Bara Ndiaye yëkkati jëmale ko nag ci Ousmane Sonko alaaji mu mel ni daal euh, li gars yi doon wax ne moo fi amoon mel na ni suñu déggloo kàdd yi Cheikh Bara yëkkati mel na ni loolu jóge na fi nee na daal waa ji du joxe sa euh, xaalis waaye dana sàmm ak kóllëre jëmale ko ci ay nitam. di nuyu de passage <coughs> di ko ñaanal jàmm. amiin yaa rabbi waaw mu def euh, révélation boo xamante ni bu am solo la boo xamante ni bi nit ñi njort woon nañ ko waaye moom mu dund ko loolu nekk loo xamante ni euh, gën na euh, fedd li li nga xamante ni bi moo tax nit ñi. am cofeel ci li nga xamante ni mooy Ousmane Sonko parce que loolu mooy li nga xam ni moom la promettroon askanu Sénégal donc bokk na ci ñi nga xamante bii jege nañ ko eh, bokk na ci ñi nga xam ni jàpp na ni bu fekkoonte ni day defal ci lu jëm ci màggal gi dimbali leen dana ko def te gis nga nekkut loo xamante ni waaye dafa joxe leneen loo xamante ni moo ëpp doole xaalis xam nga mm. xaalis lenn la mm. la plupart ñi la koy jox sax dañ la koy jox joxub jéppi am na ñoo xam ne dañ la koy faral di jox ku la koy tàmm di jox bu la koy jox finalement day mel ni rek leneen li nga xam ne mooy li gën ëpp doole maanaam loolu dootu la ko jox dootu ko seqateeg yow maanaam moo tax pareen saay relation xaalis euh, day yàq lu baree bari waaw man mës naa am ay kilifa yoo xamante ni bi mës naa seq ak ñoom dara bës naa leen ko wax ci seen ak njëlbeen ñu yëkkati dara jox la man ah lii de wax dëgg fa yàlla su continuer day yàq relation quoi mm-hmm. parce parrain saay mën naa la bëgg woo duma la mën a teewoo ndax lan parce que lii gàllankoor la ji parce que damay jàpp ne ma la wooyee da mën nga yaakaar am lu ma soxla yow mën nga maa bañ a jël c'est parce que tamit mën nga yaakaar ni dafa am lu ma soxla bu boobaa mën na am loo xamante ni mën na ko yàq ci ànd ay nawle hmm. donc loolu dafa nekk loo xamante ni bi lu am solo la la plupart nag ñu bari ñi nga xamante ne bii ñi ngi nekkoon ci ay ñi ngi nekk ci ay ndombay tànk daan faral di joxe li nga xam ni mooy xaalis ñu ci bari seen jubluwaay mooy maanaam nga delloo leen ko moo xam nga am kàddu wala nga am lenn loo xamante ni da nga leen koy delloo ci beneen forme boo xamante ni bii di tudd seen tur moo tax la plupart da ngay gis ñu naan la ku la defal lu baax nga wax ko. Mm-hmm. donc am na ñoo xam ne wax jooju lañ ciy jublu mais li am solo te mu neex ma ci mbir mi mooy nguur gi nga xamante ni bii moom la sénégalais yi fal. maanaam même bu ñu ko bëggoon sax ñemewuñu ko bu ñu hmm. bëggoon di joxe xaalis sax dañ ko dut ñeme parce ah, que euh, parce que li tax duñ ko ñeme mooy ñi leen fi teg seeni nawle lañ te dafa am loo xamante ni loolu la ñooñu jàpp muy doxalin bi nga xam ne moo lañ doxal maanaam ñu bañ a jël alalu réew mi di ko séddale nit ñi hmm. fexe de tele sorte parce que jël alalu réew di la séddale nit loolu moo lay permettre nga dem ba bàyyi sa salaire di dugg ci yeneen parce que ñu lay fay pour looy dundee la yow ak sak njaboot yooyu réglé yenn problème yi say problème mu famille et cetera mais bu fekkente ne bi yaa ngi mayee fii ay 1 million fee ngay joxe ay kii finalement di nga dugg ci loo xam ne bi jibay réew mi la. Mhm. te bu boobaa yooyu mën na indi ay jafe-jafe. Mhm. loolu mooy li nga xamante ni bi tey moo tax bi ma déggee Cheikh Bara wax lii bon ma am si bu baax mbégte daal di xam ni vraiment li nga fi nga xam ne fa lañ fàkkaloon ñi nga xamante ne bi ñooy les autorités ñi ngi fa. di mamaaka njiitu jëwri ni noonu la doxalee kon ña topp ci ginnaawam ñoom ñëpp noonu lañ war a doxalee parce que xàll na yoon bi mbaa du ñuy dafa baax ci réew mi duñ la mere waa xam nga social hmm. loo moom hmm. mënoo jël loo moomut naan yaa ngi social bu boobaa leneen nga ne li nga moom mën nga ci hmm. def social parce que loolu sa moomeel la du caagi ni ñi nga xam ne ñooy ministres duñ def social déedéet ah kañ parce que ñi ngi leen di fay am na lu ñu am lañ am mën nañ ci dimbali waate lañ ca mën a dimbalee mais jël jibay réew mi di ko social loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li fi xewoon ku ne nga jox ko ka ca war a am ak ku ca war te la plupart duñ ko jox sax ñi ko yellool dañ koy jox ñoo xamante ni bi ña denc lu bari ba noppi nag taxaw ñëw ci yow ngir nga joxaat leen ci li nga yor hmm. comprendre nga paren saa bu fekkante ni bi sociale yaa ngi jëm ca fa nga xamante ni bi fa la war a jëm laa bu boobaa du am problème te loolu je pense que ni état am na ci ay yeneen gis-gis yoo xamante mooy te li ëpp solo mooy fexe ba gis koo jox jafe loolu nag lenn la mooy alalu réew bi ñu ñokk ko jaarale ko fañ ko war a jaarale teg ko ci siraatal mustaqim ndaw ñi lañ leen ci war a investir ñu defal jàppale leen financer leen comprendre nga def yeneen yoo xamante ni fexee ay société créer environnement boo xamante ni nit ñi dinañ mën a investir ndaw ñi di liggéey sénégalais yi di liggéey di am soxla làmb seen poste jot ko booboo dàq social. Mm. parce que réew moo xamante ni bi social social rek amut benn réew moo xamante ni bi social ga bari na fa nit ñu koy def bari réew ma dox mooy wane ni rek kon réew moomu mi ngi ci kàbb comprendre nga donc nag euh, defe naa ni bu ñu defee li ñu war teg lépp ci siraatal mustaqim je pense que ni bon Sénégal mën nañ ci génn. gars yi nee nañ asaka gi nag. Hmm? asaka gi asaka gi ah kay dañ ko war di natt <laughs> asaka. Hmm. parce que azaka loolu du loo moom du alal joo moom. Hmm. azaka da ko war a natt. ni nit ñi di fayee impôt nga xam ne impôt du loo azaka tamit moomoo yaa ngi dégg parce que dañ ne la boo dencee alal ren ba déwén. pourcentage sangam war na génn ci alal ji nga jox ko ñu koy yelloo ñu ngi koy jox nag. du caag ni da nga leen koo may wala da nga leen koo sarax. seen moomeel la ñoom ñooy ñi ko yelloo. mais d'habitude da ngay gis ñu jox ko koo xamante ne ni amaana ñàkk ko itam. waaw lool nag du yoon da koy jox koo xamante ni yelloo na ko. Mm-hmm. waaw boo koy jël da koy jox koo xam ni. wax dëgg fa yàlla yàlla na ko loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg. waaw loolu moom mat na bàyyi xel bu baax a baax a kàddu yi am na solo euh, ci euh, seede yi nga xam ne Cheikh Bara def na ko ci jëmm jooju di Ousmane Sonko. ñu ànd ak yéen nag ak xaritu alaaji di euh, Cheikh Bara ab Abdou Bara Dolly Mbacké moom itam ñëwaat na ca assemblée ba comme na mu ko waxee woon rek rek ba mu taxawee ca hémicycle bi mu ne assemblée bi kat dafa am ay sekku yoo xamante ni rek wax rek lañ fi nekkee am na lu mu ca teg nag du ñu def rek lu dul bàyyi Abdou Top mu tegal ñu boobu la élément ñu dellusi diine est-ce que yow euh, en tant que honorable tey euh, sati am nga satisfaction ci assemblée bi ni muy doxee. a aw ma satisfaction parce que am na suñu ay picc yoo xamante yoo xam nga seko yi Macky moo leen fi indi. Hmm. parce que dafa jaay seen maam dafa joxe seen poste parce que seko bi ki mu remplacé. Hmm. dañ ko woon feneen muy soxna Dieng Mbacke. Hmm. après léegi ñu indi place seko pour mu ñëw di xaste. liñ ko indee woon mission lay dox nii rek. parce que hmm. loolu rek la ko fi indi indi wuñ ko fi lan mooy chaque jour que deel saago Ousmane Sonko de saago Cheikh Abdou Bara Dolly def nii loolu rek hmm. lu mel noonu mooy wane Macky Sall si moo saboté assemblée nationale parce que ñam fa indi si ay nit hmm. waruñu fa woon a nekk d'accord matuñu ay ndaw matuñu ay ndaw pincu ndaw réew mi d'accord voilà donc tey jii nii yow sa taxawaay bu fekkoon nii dañuy dissol euh, dissoudre boobule assemblée nationale fi mu ne nii donc ce qui veut dire que élection yaa ngi ñëw ci kanam tey ban côté nga gisee sa bopp yow waaw man xam nga man moom pare naa bu suba doon élection dinaa si bokk. Hmm. parce que ñaara ma la am. ma demal sama bopp coalition. wala ma ànd ak waa Pastef. Hmm. wala ma ànd ak coalition Amadou Ba. Hmm. ñett yi rek ma war a am. si ànd kenn ñoom ñett yooyu nag. li ma dàq li ma dàq ànd daal mooy benn bokk yaakaar du ma ànd ak ñoom. bennoo doo ànd ak moom. mais Amadou Ba bu taxawoon pour dem di nga. ànd waaw dama ne dàquma Amadou Ba. dàquma Ousmane Sonko ñoom. dàquma demal sama bopp. wala beneen coalition boo xamante génn sof benn boo ko yaakaar. Hmm. du ma ànd ak moom njabootu Macky Sall daal mënoo ànd ak ñoom. d' donc tey est ce que gëm nga ni boo demoon yow tamit yow kese fii. waaw c' est man moom wér na ma ni man bu ma demaloon sama bopp dina am ay député man hmm. xam naa loolu noonu jërëjëf euh, Top Alaaji Abdou Bara Dolly sa xarit bi nee na euh, li waral assemblée bi mel nii euh, Macky Sall daf ci joué ndaxte moo saboté assemblée nationale bi nee na itam ndàkkul mm, ànd ak ñaari parti yooyu mu fi tudd muy Amadou Ba ak kii di waa ñi jiite muy waa Pastef itam wax na dem ak boppam est moom. objectif bi ñuy wax dëgg-dëgg wala am détermination parce que bu ñu jàngatee li mu wax dafa mel ni moom dafa euh, confuse xamul fu mu fu mu war a féete moom Abdou Bara waaw xam nga assemblée moom hmm. euh, lim ci wax moom am na solo parce que am na ñoo xam ni euh, waruñu woon a dugg assemblée nationale waaw bu fekkonte ni ñi jiite woon yëf yi teg nañ yëf yi ci yoon am na ñoo xamante ni mérité wuñ pour de dem assemblée nationale parce que day ñuy wàcce niveau niñ doon xoolee député ak fañ doon teg député loolu na leen wax ay sekku nag jàpp na waa loolu moom mbirum xaste la loolu moom peut-être la ko kooku wax moo tax mu di ko wax loolu mais wax la yoo xamante ni bi moom wax yuñ saan mais ndax nit ki moom mérité pour yegg ci assemblée nationale wala mu bañ caa yegg am na ñoo xam ne moom boo leen xoolee xam ni wax dëgg fa yàlla amuñu place ci assemblée nationale parce que la ñu fa nekkee euh, askan wi leen yebal euh, vraiment dese nañ leen a amal njariñ mm-hmm. donc loolu moom lu nit ñi gis la mu nekk constat boo xamante ne bi bu leer naññ la confusion bi nag confusion ba nee na moom mën na ànd ak ñii mën na ànd ak Amadou Ba nit kay da ngay féete fenn ñu xam ni fii nga ne waaw mais xam nga boo seetee hmm. moom ñaari choix la mais daf ko def ñett parce que euh, bu ko leeroon ni moom sëñ Abdou Bara Dolly ne bu demalee boppam day am député. Ah, te mu wax ko. day demal boppam. non dama ne bu ko leeroon. loolu la c'est que loolu la bëgg yow mu mel ni lu la leer. ah ah mais li mu wax. nee na moom lii nekk man laa lay wax yàlla ni bu demee. boppam moom bu ko leeroon ni bu demee moom dana am député. du sonn sax ci nii mu nekkee mais dafa xam ne bu demee doo am député choix nag Pastef la mooy choix am waaw donc Amadou Ba sax du choix am parce que xam na ni bu àndeek ak Amadou Ba tamit du am daanaka dara. Ah. du mën a jàll. mais nag choix am Pastef mooy choix am mais munu koo wax comprendre parce que mënoo jóge ci ay élections yoo xam ni yaa nekkaloon Amadou Ba ca kii. ci biir wax ji nga ne xulóowu maag boobu mën naa àndaat ak moom mën naa àndaat ak Pastef kon donc ce soir mooy Pastef mooy ce soir comprendre léegi nag mais ni mu ko waxee noonu dafa mel ni dafa am ñett moom yoo xam ne mën na tànn mooy tànn maanaam que ni ma demal sama bopp wala ma ànd ak Amadou Ba wala ma ànd ak Pastef loolu c'est pour Euh, gën a yokk kii bi léegi nag day déglu ñi nga xamante ne bi ñooy waa Pastef xool ba xam ndax dinañ ko ubbil bunt bi ah, ndax bunt bi day sonde daal waaw ndax bunt bi dinañ ko ko ubbil pour mu dugg hmm. waaw parce que bi yoon sànni na kiiwam mais dafa bëgg gars na ko ñëwal dugg jàpp naa ni euh, pour mu yomb day xaw a doyaay parce que mënoo woon démb nga nekkoon adversaire u euh, waa Pastef ca Touba ñuy defaat liste boo xamante ne bi yow mën nañ la cee boole te fekk na yow ba nga demee tamit gis nañ ni représenté woo lu bari yàgg ña nga àndoonoon ñëpp représenté wu leen lu bari ca Touba donc gëm naa ni loolu kii léegi nag mais wéeru ci Pastef bi noonu mën na ko jox rang bu baax euh, ci ñi nga xamante ni bi euh, euh, mooy ci Amadou Ba pour mu jéem caa lijjanti pour ñu boole ko mën na bañ a bokk nag ci liste départementale waaye ñu boole ko ci liste nationale yi mu nee day xeex ca Touba waaye na nañ ko dugal ci rang bu baax ci liste yooyu bu ko defee foofu nga xam ni bu amee rang bu baax dana mën a nekkaat député parce que day calculer xam nga tey bu ñu defee ba pare xam nga yu ci mel ni kii xam nga raw gàddu la te foofu moom leer na ko ni moom dañ koy ñàkk parce que député ya fa nekk kii da koy waabale comprendre nga. Pastef da koy raa waabale. xaw ma coalition Diomaye ak luñ mën a ànd en tout cas dañuy waabale Touba moom loolu moom leer na xam na ni mais list nationale lay wax Amadou Ba boo ma ci boole boolewut waa Pastef yee soxla dañ ma te fekk ne moom moo soxla waa Pastef yi pour dugg mais mm-hmm. loolu Amadou Ba moo ko moom léegi nag Amadou Ba moom nu muy defee listam léegi loolu lay xool bu fekkee ne nangu na ko dugal ci liste nationale bu boobaa moom jox ko fa rang bu baax boo xamante ni dina ko leer ne dana jàll bu boobaa moom mu ànd jeeg Amadou Ba parce que ci calcul la nekk fi mu toll nii. mais laaj est-ce que loolu tamit do do doxal na ay mbiram parce que yow mënuloo bu tayee nga wax lii bu subaa nga wax la ca des tamit. Ah, da day politique nag ci politique lañ ne. ah mais politique a taxaw taxaw fii ne politique boobu léegi jeex na. waaw mais façon moom yëgagu ko yow yaa yëg ni jeex na de mais moom fi toll nii pour moom politique boobu am na ba tey donc moo tax fi mu toll nii ci calcul politique la demalut boppam mais bu wéeroo ci Pastef nii léena pour Amadou daal dina kii kat ku posé kii la boo seetee fan yi euh, waa Pastef lay nuyool ñoom lay dendal ñoom lay rombanteel di leen klaxonné <laughs> di wax waxu kii comprendre mais alaaj loolu tamit mën na ko jëlal ñàkk fépp de ah non mën na bañ a ñàkk Amadou parce que Amadou moom amut lu muy loolu amut choix mën na ko mën na mën na accepter Hmm. mais en tout cas daal xam naa ran bu baax la bëgg ci liste nationale bi nga xamante ni eh, danañ ko teg liste boo xamante ni bi mu am ci ran boo xam ni dana jege moo comme ay Abdou Mbaw rek ni ñuy xëccoo ni yëpp di fës. di buruxlu pour xam nañ ni mënuñu dem. cees hmm. xëccoo fa. Hmm, parce que bu boobaat ci liste kii ba noonu dañ dañ koy ñàkk. léegi yooyu xam na ni eh, mënu fa am loolu mais léegi dafa bëgg nekk ci list boo xamante ni bi dina ko mën a yóbbuwaat assemblée nationale. parce que dafa bëgg Macky buy tegaat yëf yi daal ne Abdou kat weex na saf na naa ko jiital ci kii yi bu ko defee nga xam ne dina mën a am yu bari yoo xam ne dina ko liggéey ci assemblée. d'accord yooyu la rek fi mu toll nii moom it li muy def. loolu lay cherché yooyu lay cherché. mu ngi noonu en tout cas yéeme na lool waaye nag euh, la ci kanam raw li gët yàlla ñu may yàlla ñu yàlla may fekkee ku tal. amiin euh, Ahmed Ndoye. moom ñëw na nag euh, tey ci artistes yi nga xam ne ni euh, moom dañu ne daf ne dañu xewi léegi nag dañu bëgg a langaamu ci bubbu grand bubbu sonk bi pour pour pour jàll pour mën a fa laat moom daal kàddu yooyu la yëkkati Abdou Top ñu euh, teewlu ko te si insécurité bi ci dëkk bi ñuy rey doomi réew mi ñi nga xam ne ñoo la fal waxoo ci. nga jéem a toog ak non seulement bu doonoon artistes yu xew ma ne d'accord. mais ñoo xam ne ñii bañ mujjee jënd single kenn xamul kañ la. ñii sax bëgg xewaat moo tax ñu lay woy te xamoo ko. déjà soo muusoon rek di nga xam ne ñii xewuñu. yow Wally Seck woyu la Youssou Ndour woyu la Mia Guissé woyu la Ngaaka Blindé woyu la Dip woyu la. c'est-à-dire boo muusoon xam ne ñi la woy xewwi nañ yow yaa xew ñu bëgg si sa xew yow xewaat ci. gi Guité kañ nga ko gëjoon dégg à part woyu Ousmane Sonko bi. kon daa xewi li ngay nangul Ousmane Sonko mooy. ci fukki at yi passé ku ko ëpp tour amul Sénégal yow soo muusee bëgg xewaat dangay dem woy Ousmane sonk boo dee woykat moom usmaan sonk comme amul intelligence su xam ne ñii bëgg xewaat a tax ñu koy woy mu yaakaar ne ñoo ñoo xew moo lay wan ne xamul li xew waxuma Abdou mënul woy xam nga manoo woy ak xew ça n'a rien à voir li indi woon coowal Carlou D ba kii ndaxu cest à xew loolu day am temps la période la guddi yi ñu toll hmm. ñi ma la limal sànq ñoo xew waalikat waay na fi ni may leen ko temps may leen ko temps waali loolu bi ñu toogee la ñoom mu am lu mu soxla mooy li ma la wax maanaam intérêt lay doon wala gis dëgg bañ koo wax contrat RTS lañ ko signé vingt ou vingt cinq million pour guddi googu mu taxaw way waa ñi ko signé du leen way dina leen way waaye xam nga moo tax mu way mu way Pape Alé ñaa pare teg leen ci donc pour war na la maanaam dañ ñuy nax di dund suñu kaw ci même moment boobu noonu bu ñu paree motaar yi dar leen seen doom yi nekk ci sécurité seen jabar nekk ñi nekk petit palais ñi nekk palais ñu leen di gàdd ba bët set ñun ñuy dugg suñuy appartement di ñuy rey alaaji mi ngi noonu euh, moom Ameth Ndoye wax na ci euh, manque de sécurité bi am ci biir réew mi si gis-gisam nee na itam euh, ñi nga xam ne nii dañu bëgg a langaamu ci kaw waa ji pour bëgg a xewaat nee na waa ji daal boo ko tuddee rek say mbir dana dox moom nag boobu ba tey mi ngi wax ci moom man loolu ma jaaxal parce que nag bu fekkee ne yow jàpp nga ne nit kii moom amul intelligence soo xam ne ñii dañu xewi ba ñu koy tudd yow du tee saay suñ la tiimee micro rek yaa ngi ci moom bu loolu tamit yow ban aperçu nga ci am. waaw xam nga mbirum artiste. Hmm. Euh, diw dafa xew yi ak diw dafa xew euh, loolu dafay nekk loo xamante ni euh, maanaam tey ñi mu tuddee ñu xew yi ñoom ñoo njëkk a seen kon yëf yi. Hmm. maanaam ñoom kon am nañu recul ba gis ni fii ak nangami at lii moo war a ñëw parce que loolu mooy artiste tamit nga ne lii bu ma ca kenn jiitu te biñ ko wayaatee tamit delsiwaat nañ ci mbir yi du dëgg delsiwaat nañ c'est parce que teel nañu xam ni yëf yi fii la li bon mooy artiste bi nga xamante ni bii xewoon na mais yëgut fi yëf yi jëm mu nekk en retard ba am ñu ko jiitu ca yëf ya du dëgg mm. léegi mu ñëw di def li ñuy tuddee burxulu mm. du dëgg mm. kon artiste yi euh, mënoo leen a xas parce que loolu kiiw artiste la artiste da nga war a am flair da nga war a am vision am gis-gis parce que waroo yab ak nit ñi fi ngeen di fi ngeen di gisee maanaam artistes yi muy wax maanaam dañu am gis-gis bu sori maanaam lu ñu séenni léegi ñëw ñu daw fekki loolu parce que boo seetee euh, Ousmane Sonko mi nee na Abdou Djité Seck avant mu koy way Abdou Djité Seck yàgg na adhéré ci li nga xamante ne bi mooy seen mooy cause bi mhm. Ousmane Sonko wax na ko gaay mhm. kon bokkut ci ñi nga xam ne dafa def riirandoo comprendre la peut-être nag am na ñeneen ñoo xam ne dinañ profité ci yëf yi daal day ñëw fekk si mbir mi pour nekk mais loolu yëpp tamit façon la boo xamante ni bi da ngay xam pour dugg ci mbir mi comme tey jii ñoom journaliste yi rek fi mu toll nii ñoom ñëpp Sonko leen xewal tax yëguñu ko ñoom ñi xewuñu woon ci xewu Sonko ci lañ xew ba noppi mi ngi critiquer ñi nga xam ni euh, dañoo xewi woon xam nga ñooñu xewoon nañ ba xewi yow nag xewoo woon. Mm. y a différence entre ki nga xam ne xewoon na mm-hmm. te Sonko xewalu ko woon mu xewi mm. ba Sonko xewaat mu xewaat ci xewu Sonko mm. kooku jiitoon na la ab xew mm-hmm. kooku du sa moroom donc ñi muy wax noonu ñooñu xamoon nañ leen laataan Sonko te moom xamuñu ko woon moom ñi ngi ko xam ci bi Sonko nekkee mm-hmm. kon moom moo profité ci xewu Sonko du dëgg donc tey ji émission yi gën a dox mooy yi nga xamante ni bi mi ngi wax ci Sonko mhm. ba tax na débat yépp ci Sonko lay wax ak luñ mën a ubbi dina orienté débat bi ba yóbbu ko ci Sonko parce que bëgg na que ni ñu saaga ko ci ak luñ ko ci mën a wax mais nañ koy dégg mais xam na ne mi ngi ko mën a amee ci Sonko moom mooy profiter ci xew Sonko léegi nag Sonko nag dafa am loo xam ne bu la ko sunu borom defaree loolu yàlla moo la ko defal léegi li muy tuddee ne Sonko intelligent wut muusut parce que dafa invité ñi nga xamante ni ñoo xew bu jëloon ñi xew xam nga ko kan moo koy wax hmm. mooy ki nga xam ni dafa jëli ji ki xew pour xew ci wala comprendre maanaam tey dinaa invité artiste parce que artiste bi dafa am kot pour ma xew ci ay mbiram mais man su ma yàlla dénkee lii may xewalaate yaa ngi dégg est ce que xam nga mm. moom li mu wax xamut sax euh, mm. fi muy wax niveau niveau bi mu waxee mm-hmm. maanaam dafa amut gis-gis ci li muy wax mm-hmm. maanaam Sonko yàlla da ko def mu nekk kuy xewalaate kon donc du jëli ji ñi xew parce que pour ñiy jëli ji ñu xew dañoo bëgg a xew ñoom moo tax ñuy jëli ji ñi xew mm-hmm. mais moom day xewalaate ñoo ñooy daw fekk si ko moo tax ñoom Wally Seck di daw di ñëw di leen way parce que dañoo xam ni déedéet du xaalis ñoom Wally Seck li tax ñu daaw si ñëw parce que dañu xam ni yëf yaa ngi fii bu ñu yeexee ñëw dañuy ñàkk mhm. donc moo tax ñu daw parce que dañu xam ni kii xewalaate ki téye mbirum xew mi sunu borom mi ngi ko dénk diw donc nag ñoom il faut ñu daw wutali ko kon donc kon moom gis-gisam ni mu waxee gis-gis bu gisam gis-gisam moo gàtt <laughs> parce que dafa gis dafa gis ni bu jëli ji woon artistes yi xew ñiy jëli artistes yu xew ñooñ ñooy ñi bëgg a xew te xewuñu waaye ki xew ba pare day tey xewalaate soxla wut ñooñu ñooñoo soxla daw si wutal si ko ngir xew du dëgg d'accord leer léegi li mu wax ci ci ci manque de sécurité bi nee na ñoom dañuy nekk ci seen sécurité am seen i garde wàcc sénégalais yi ñu nekk seen appartement du leen fu fekk du leen nga ah, xam nga crime ci appartement ak yenn yi nga xamante ne bi ñu ngi koy wax ak yooyu xam nga am na yu ci bari yoo xamante ne mënoo ko tuddee Euh, leen li parce que loo xam ne bu fekkee ne dafa xew ñuy wax naan ay xarit ak ay kiiw ak affaire yooyu mm-hmm. la ñuy wax xam nga yooyu euh, pour pour yooyu échappé la ci kii mm-hmm. comprendre nga c'est su ñuy wax tey mënoo ko contrôler voilà am na yoo xamante ne bi yeneen mbir la quoi mm-hmm. comprendre nga moom loolu dafa jëloon loolu rek teg ko mais loolu sax yitteelu ko woon li mu jublu woon mooy classe artiste yi classaale Ousmane Sonko loolu mooy di ko yitteel mais lële da koo jël rek pour solalee ko tubéy li nga xamante ne bi moom la moom la bëgg a wax parce que bëgg na invité nay artistes yi peut-être déranger ko mu am neneen nu mu ko bëgg a waxee parce que artistes yi ci réew mi lañ bokk yaa ngi dégg mm-hmm. te tey jii bu fekkonte ne bi invité wul artistes yi léegi tey nga dégg ko mu daal di wax ne artistes yi ko doon jàppalee ngi ni faalewu leen mm-hmm. bu demoon jëli ji ñoom Wally Seck moom bu defee émission danaan pourtant artistes yi ko doon way di ko jàppale faalewu leen donc moo tax pare na saay euh, am na ñoo xamante ni bàyyi leen ñuy wax nga continuer ne ci li nga nekk ci li nga nekk mhm. en doy na waa euh, ñu bàyyi la rek nga tàggatoo waaw dig daje beneen altine ci kàttanu borom bi. incha allahu rabbi jërëjëf euh, Maguette xalaat yi am na solo ñu ngi jaajëfal nag euh, képp ko xam na rek yaa ngi toggoon di ñu bàyyi xel euh, wéy leen nag di abonné ci suñu ay plateforme jaajëfal itam Abdou Top Modou Diouf Abdoulaye Diallo ak Serigne Fallou Gumbala jox leen dig daje beneen altine ci l' émission des émissions.